Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yu wóote leer ci bile jamono. Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yu wóote leer ci jamono dafay la ko jox moom xibaar yu wër te leer ngeen jëf ñu am mbégte ak contentement ba tey rek di jàkkaarloo ak yenn ci seen yoor yooru seneinfo ma di ko amal ba tey ak sama naataango bii di Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf ma bàyyi ko mu ñëw rek ñu daal di jàll ci seen yoor yooru Sene Info Buur si waaw soxna Sène maa ngi lay nuyu di la bu baax di nuyu itam mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel saa su ne suñu différentes plateformes yi site bi di seneinfo point net chaîne YouTube bi Sene Info International wante itam suñu différentes plateformes yi kon di amaat bu baax rek di leen dégtal yor-yoru Sene Info. jërëjëf Bour Sine tey nag waxtaan bi comme ni koy defee saa su nekk tey nag di ngeen am ñaari parti bu si njëkk lañ traité actualité yi deuxième bi ñu daal di dalal suñu gan. actualité yi si première partie bi nag dinañ si traité yi nga xamante ne nii moo journée mondiale de la rajo nekk tey jilee ñu jaar si Macky Sall tournée économique bi nga xamante ne ni mu ngi koy amal ba tey. jàll tamit si visite bi nga xamante ni nii Ousmane Sonko moom amaloon na ko fële ca Walf ginnaaw bu ñu tëjee seen boobule télé demoon na fa di leen masawu ba tey ñu wax ba tey si Ousmane Sonko mooy manifestation bi mu amaloon Mbàkke ñu interdire woon ko dafa déposé waat beneen demande loolu yëpp dinañ si ñëwaat ñu continuer ak yéen ba tey rek ak Macky Sall mi nga xamante ne nii jëloon na ay kàddu yëkkati ko si wàllum réew mi nga xamante ni yëngu bu muy yëngu mu ngi xam ne nag du bàyyi mu di fi amati Aminata Touré moom tamit envoyé na benn lettre kii d maam. Amadou Mame Diop di xamle ni jotagul ba tey benn courrier buy wane ne moom décision bu assemblée jël ngir dàq ko mu ñàkk post poste député boobu noonu. Hmm. loolu yëpp ba tey dinañ si ñëwaat ñu jeexalee rek ak li nga xamante ne nii dal na si waa Turquie nekk lu miti bilan bi nag di yokk ba tey fi mu toll nii romb na lu toll si trente mille personnes yoo xamante ni ñàkk nañ fa seen i bakkan. ñu ñëw euh, ba tey rek si combat bi nga xamante ne nii tamit ba tey euh, moom Bombardier amaloon na ko ak Tapha Tine démb boobule combat nag Tapha Tine mujjee woon jël ndam li bu ñu jógee foofu ñu ñëw ak yenn si seen deuxième partie yor yoru Sene Info si deuxième partie bi nag dinañ dalal suñu gan kii di Pac Musique moom nag am musicien la bu boobaa xam naa damay bàyyi buur siin mu daal di développé ak ñoom bu si ñu daal di commencé traité suñu information rek ba tey yéen ngi ci seen yor-yoru Sene Info fi ñuy njëkkee rek mooy journée mondiale de rajo bi nga xamante ne nii tey la si 13 bi rajo nag dafa nekk lu am solo box Sine mm-hmm. ndaxte ñu ngi ko découvrir si 19e siècle si vingt si fin wu 19e siècle nekk début wu 20e siècle xam naa dama lay bàyyi nga développé ci tuuti rek ñu daal di continuer waaw soxna Astel comme ni nga ko waxee rek rajo nekk na loo xam ne jumtukaayu xarale tas xibaar la bu am bu am am solo booy xool sax euh, rajo nekk na bi euh, nga xam ne moom la ñuy gën a utiliser euh, ci ni ci ñi nga xam ne peut ñu ngi ñu ngi ñu ngi déglu information ak yooyu. Mm-hmm. booy xool sax rajo nekk na moyen bi nga xam ne moom la ci gën a utiliser tey maanaam ba yenn zone reculée yi. ci dëkk yi da dem mais da ngay fekk sax euh, benn magget boo xam ne day yor poste rajoom di déglu li nga xam ne kon moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy information bi euh, rajo bokk na ci euh, boo koy déglu d'habitude da ngay mel ne da nga nekk ci fi nga xam ne boobu la mbir mi xewee maanaam instantanéité boobu nga xam ne da am action yi da ngay boo koy déglu ci mbir mi di amee Euh, yaa ngi fa da ngeen da dund li nga xam ne moom mooy événement bi comme ni nga ko waxee nag tey 13 février euh, ñuy célébrer li nga xam ne moom mooy euh, journée mondiale bés boo xam ne dañ ko jagleel wàllum rajo ci àdduna bi yëpp loolu nag ñu ngi ko amal luñ njëkk ci kon février wala boog 3 novembre 2011 lañ ko njëkk a entériné kon boobule journée ci 36e conférence bu UNESCO foofu nag la ñu jëlee kon bile décision ne daal dinañ jël boobule journée jagleel ko li nga xam ne moom mooy euh, rajo ñu njëkk amal proposition bi nag kon di waa Espagne boobu ba léegi nag kon ñu koy amal 2011. kon ba léegi ñuy amal bi de journée internationale de la rajo ñu ci nag euh, ndokkale suñu naataango yu presse rawatina ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci rajo di leen jaajëfal ndax ku ne xam ne liggéey bu am solo bi nga xam ne presse am na ko euh, rajo am na ko rawatina presse bi yëpp liggéey bi nga xam ne yaakaar naa moom bu ñu boo xam ne dañ naan information amul peut-être rajo du wax dina am xam ne nii dina leen dina leen indil jafe-jafe peut-être du leen neex dara ñu xëy suba ba ngoon te déglu ñu li nga xam ne moom mooy euh, rajo bi nga xam ne moom moo leen di jox seen seen ay information kon nag ñu ngi jaajëfal képp koo xam ne taskatu xibaar nga nekk bi ñu ngi lay jaajëfal di la félicité di lay ndokkale ci bés bi nga xam ne kon euh, ñun ñoo ko moom euh, soxna si jërëjëf Buur Sine si yaatal bi am na solo torop comme ni nga ko waxee rajo moom déglu ko dafa nekk lu am solo surtout ñi nga xamante ni ñi tamit nekkuñu sur place rajo bi dina leen jëriñoo lu bëri si loolu comme ni ko waxee rek ñu leen di jaajëfal bu baax a baax képp koo xamante ne nii mu ngi liggéey si rajo. ñu jàll ba tey euh, si Macky Sall mi nga xamante ne nii moom tamit mu ngi si tournée économique am bi ba tey euh, ni kii barki démb nag si samedi bi mu ngi woon fële ca Malicounda doon inauguré centrale solaire bi nga xamante ne nii moo nekk Malicounda. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee soxna Asel ba léegi ci cadre tournée économique bi nga xam ne kon mu ngi koy amal ci région de Thiès bi yëpp kon ci lool nag la amal kon samedi comme ni nga ko waxee inauguration centrale électrique foofule ca Malicounda muy nag centrale électrique boo xam ne capacité am toll na ci cent vingt mégawatt ci ay koppar ñu xayma ko. lu toll ci cent un milliard de francs CFA loolu nag dina nekk lu am solo. ngir yokkaat nag eh, li nga xam ne eh, moom mooy eh, énergie fii ci réew mi ndax ku ne xam ne ne ba léegi dañuy faral di dund ay coupure ak yi ni mel wante nag bu ñu peut-être central bu mel nii bu fekkee ne tey inauguré nañ ko fii ci Sénégal mu war a ñëw yokk dispositif bi nga xam ne kon nekkoon na fi ci wàllum courant day nekk loo xam ne kon lu ñuy lu ñuy lu ñuy li ñuy salué doon peut-être kon ñu ngi séntu daal fan yi ñu jëw mën naa am li nga xam ne kon moom mooy coupure yi eh, dina wàññeeku kon ak centrale bi nga xam ne kon ñëw na dolleeku ci li fi nekkoon eh, déjà mu toll kon ñu fàttali ci cent vingt eh, mégawatt lu am solo la lu am doole la puissance boobu kon nag comme ni comme ni ma ko waxee rek mën nañ xaare ni ne li nga ne moom mooy coupure courant yi faral di am dina wàññeeku bu baax soxna Sall waaw bu seeni ñu continuer ba tey ak Ousmane Sonko mi nga xam ne demoon na ca Walf doon leen euh, ndokkale ginnaaw bu ñu tëjee ginnaaw bu ñu tëjee seen télé boobu ndax ay diffusion image yu ñu def yoo yu ñu yi nga xamante ni jàpp nañ ne waruñu ko woon a def si loolu nag ñu tëjoon seen télé Ousmane Sonko nag demoon na fa di leen euh, massawu bu euh, laaj bi ñuy taxawal mooy lan moo tax Ousmane Sonko moom tamit saa bu yëngoo lu bari yëngu ndaxte seetlu nañ fa ay lacrymogènes yi nga xamante ne nii jot nañ ko sànni ngir foule bi daal di dispersé wu ba si information yi dañoo gis ne agent yu BIP yi ñoo daal di ko gunge moom Ousmane Sonko ba këram. Euh, waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee waa d'abord ci dem bi euh, comme que li nga xam ne moom mooy signal Walfadjri ñu ngi ko coupé woon si jamono joo xam ne comme ni nga ko waxee ñu ngi doon diffuser li nga xam ne moom mooy euh, manifestation yi amoon. foofu la ca Mbàkke Sénéra gis ne kon dañ doon diffuser en boucle maanaam daal di di di ci lu dakkul. luy continuer li nga xam ne loolu jàppee nañ ko ay scène de violence ba tax kon ñu defoon leen sanction boobu ne dañuy suspendre seen seen seen seen seen seen signal signal Walf télé bi ci lu toll ci ci ci ci une semaine en tant que sax ñun ay confrères tam ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi leen di woon tout cas suñu ko ànd suñu ko jàppale ñu ngi compatir ci loolu nga xam ne kon suñu naataango yi fajri ñu ngi koy tudd jamono ju nekk nii Ousmane Sonko nag gis ne mu jàpp ne lu jaadu loolu la mu dem euh, pour daal comme li nga wax masawu leen comme que mbir mi tam euh, ci li contexte bi mu xewee moom la moom la moom la concerné tax mu jóg euh, dem foofu la ca ca wàllu fajari mais comme ni nga waxee moom gis nañ ne saa yu jugee rek ful da koy topp saa yu jugee rek ful da koy topp donte wootewul peut-être dayoog nit ki ak tam bëgg li nga bëgg ak xër bi nga xam ne gis nañ ay ndaw. xër nañ ko jëmale ca ca moom Ousmane Sonko muy daal loo xam ne ah, en tout cas doy waar la ah, à moom bu jógee firi boobu nga xam ne dañ koy gis jeunes yi di ko ànd ak moom nekk na loo xam ne nii daal nekk na loo xam ne lu doy waar la te nag fi mu nekk nii ñu bëri dañuy tiit sax ne euh, parce que ci contexte bi ñu nekk la contexte élection présidentielle ñu bëri ñu ngi tiit di jàpp ne maanaam fi ñu jëm boo moywul boo moywul dina gën a dina dina gën a métti d'ici en pouvoir comme côté opposition daal li ñu leen di woo moom mooy euh, ñu ñu xam ne Sénégal gi nekkul production yi kese quoi Sénégalais ñun ñëpp ñoo ko bokk comme ñoom nañu na ngi responsable na ngi responsable seen ay discours na ngi responsable seen ay acte ngir daal euh, jàmm di nga xam ne moom la ñu xamee Sénégal fii jàmm jooju jàmm jooju sax fi léegi comme ni ko waxee am na euh, na benn demande boo xam ne ñoom it def nañ ko ngir meeting boobu nga xam ne moo indi woon coow li mhm. ngir ñu ngir ñu ngir ñu amal ko ci boobu dafa am benn man boobu am naa benn jàngat maanaam euh, première euh, li nga xam ne moom mooy meeting bi meeting meeting ñu ci waaw bi nga xam ne dañ ko tere woon mhm. donc peut woon nañ mu am euh, ay manquement yoo xam ne notifié woon notifié woon nañ leen ko mhm. mais après gis nañ li ci xew bi ñu bi ñu ko notifié d'accord ñu ne waaw d'accord ñu investir nañ terrain beeg euh, yi man damaa gis ne peut-être côté préfet bi euh, pour man peut-être li gënoon yomb li ma jàpp xaw ma nag peut-être moom li mu def loolu yomb la doon def mais man li gënoon yomb ne waaw am na benn am na benn am na benn nit boo xam ne peut-être comme su côté signature la ñu waxoon ñu ne trois personnes benn des peut-être bu leen ne woon ah yéen kat seen affaire benn signature moo des nangam nangam mottali leen ko ñu xool daal luy indi jàmm donc keneen boobu lay waxee quoi peut être loo xam ne bu ñu ko defee jàmm dina am mais ñeen bi ñeen bi ñu leen tere peut être ñoom ñoo nekk loolu chef ñu leen tere pour man li ñu waroon def ñoom it ñoom ñooy ñu déjà finalisé seen demande ba pare mhm. kon nag ñun tam ñu plié ci li nga xam ne moom mooy décision bi nga xam ne moom mooy euh, bés bi nga xam ne kon moom lañu déposé ngir amal li nga xam ne kon moom mooy moom mooy moom mooy Bour Sine foofu sax euh, dinaa ci man a wax parce que man dama jàpp ne loolu moo waroon a nekk le fait que ñu bindaat ko déposé ko man dama jàpp ne loolu moo waroon a am plutôt que de keroog boo gisee yàq bi ñu yàq biir Mbàkke ay station yu bëri jot na fa yàqu man dama jàpp ne loolu tamit jaru ko woon ni ñu def nii lañu waroon a njëkkee dem bindaat ko déposé waat toog xaar ba xam lan mooy xew mais pas que ñu déposé ñu ne leen am na lu manqué aussi toj yeex yàq yi loolu yëpp man dama jàpp ne vraiment jaru ko woon. loolu loolu la ñuy déploré la quoi parce que loolu la ñuy déploré la comme li nga wax rek euh, peut-être euh, war loolu loolu lépp war loolu am mais euh, de l'autre dañuy tenir seen ay dañuy tenir seen ay meeting kenn du leen la ñuy demandé quoi dañuy jàppee daal ñoom seen idée singili alors bu fekkee beneen côté bi la dañuy gis ne euh, buñ buggee nii dañuy def meeting ak yeneen mel nangam nangam. lu mhm. ci mën euh, Sénégal jàmm moo fi xëcc. Mhm. jàmm ji nga xam ne moom la ñu xamee nañu moytu li nga xam ne day xew ci yenn dëkk yi mu am fii. Mhm. maanaam léegi daal ay mbirum guerre civile ak day yóbbu si yenn euh, yi. nañ ko mooy ñun Sénégal jàmm lañu xam kon nag bu ñu ko def pouvoir côté opposition yi dañ leen ñuy tenir ay discours responsable ñuy wax ak seen militants yi wax yoo xam ne. di ngeen xërtal ci mbirum euh, violence minimale soxna Seck. waaw bu siin comme ni nga ko waxee rek senegal moom jàmm rek moo fi xaj te foog naa ne jàmm moo gën ay lu dul jàmm jàmm moo ko gën kon nag nañuy ñaan nañuy ñaan jàmm saay bu ñu xëyee di dox ci jàmm di wax ci jàmm. ba tey rek ñu continuer ak euh, Aminata Touré mi nga xamante ne nii bind na ab lettre jëmale ko ci Amadou Mame Diop di ko xamal euh, ne moom tamit jotagul benn courrier officiel. buy confirmé ne moom tamit dàq nañ ko si poste député waaw xam naa sax balaa nga ñëw ci Aminata Touré sax damay maanaam ci kaw jàmm yooyu nga daan wax ki nga xam ne moom mooy jiite Macky Sall mhm. ñu ngi naan euh, ci euh, ab daje boo xam ne am na ko ay responsable yu APR fële ca gouvernance bu Thiès ñu ne nag euh, mu ngi ko doon artu naan daal jàmmi réew mi duñu seetaan kenn di ko salfaane mhm. ak li ni mel moom njiit réew mu ne nag euh, li nga xam ne moom mooy euh, sàmm saytu kaaraange sénégalais ak seen i ay biens seen i moomeel am-am mhm. mu ne loolu moom en tant que réew da koo war te nag mu ne da xar tànk tubéyam te nag mu ne lu ci góobee dina ko daal ba li nga xam ne moom mooy jàmm ji am Sénégal euh, kenn du ko salvaane soxna si waaye ci loolu rek ma ñëw kon ci li nga wax léegi muy euh, soxna Aminata Touré nga xam ne nag kon euh, wax naa ko li nga xam ne moom mooy président boo samee semaine Eman Mame Diop bind ko war ne ko daal moom dàq bi ñu dàq bi ñu ne dàq nañ ko ko assemblée nationale dama am Touré mu jàppee ko ne dàq bi jaaduwul la nee na dàq ci yoon la moom nag nee na ba fi mu nekk nii jotul am notification bu koy wax ne moom dàq nañ ko dàq bu illégal boobu comme comme comme comme ni ñu koy waxee sonal nit rek kon nag nee na mu ngi xaar loolu xaar na nag nee na euh, comme que nee nañ dàq nañ ko dañ ko jox ab këyit wan ne ko kat yow euh, dàq nañ la fi nga xam ne moom mooy euh, assemblée nationale euh, bokkatoo ko soxna si. waaw euh, Bour Sine ba ñu continuer ak réewum Turquie mi nga xamante ne nii ginnaaw seen séisme bi ba tey ñu ngi daal di gis ay personnes yi nga xamante ne nii ñu mujjee gis nag kenn àndu ci ak bakken parce que lundi la woon ba tey tremblement de terre boobu lundi la amoon ba tey bilan bi nag di gën di yokk ba fi mu toll nii passé na lu toll ci trente mille morts nekk lu metti torop Bour waaw soxna Asel fi mu nekk nii nag suñu comme ni nga ko waxee suñuy mbokk yu Turquie ak. Euh, Syrie Syrie ñu ngi dund lu métti. altine ba léegi gannaaw bi nga xam ne nag ay suuf su yëngu moo fa am muy tremblement euh, de terre kon euh, fi mu nekk nii ñu ngi naan bilan ba ëpp na 33 mille morts muy loo xam ne ko lu métti la lu doy waar la ñi nga xam ne nag ñoom ñooy solidarité ñu ngay wéy di seet ñi nga xam ne ñoom. ñoo loolu fi mu nekk nii sax amatuñu yaakaar ne kon dinañ gis euh, kuy dund donte nag euh, am na euh, ay xale ma juumul ci samedi beeg ci ajuma bi am na ñaari xale yoo xam ne ndeysaan gisaat nañ leen ak bakkan muy yéeme miracle la lu doy waar ba léegi kon ñu ngi wéy di amal li nga xam ne moom mooy recherche yi fi mu nekk nii nag beneen problème dafa posé wu ñuy njort ne dina am peut-être ay feebar ak yooyu yoo xam ne mën na cee law lu ci mel ne feebar corona bi ñu tuddoon wante itam euh, li nga xam ne moom mooy prise en bu sinistré yi parce que tam ay millions et millions nit fi mu nekk nii ñoom ñoo nekk dans le dans le bi nga xamee ne kon euh, loolu am soit ñàkk nañu seen ay seen i alal lépp amatuñu dara ñu war di leen prendre en charge ñu war di leen faj ñu war di lekk ñu war di naan beneen problème moo gouvernement ñaari réew yi ñu ngi woo adduna ngir ñu gën leen a a jàppale ñu gën leen a a taxaw si mm-hmm. jamono ji nga xam ne ko ne ni ñuy dund métti na métti ni ñu ko waxee rek jamono ji ñu toll nekk na ñoo xamante ni soxla dimbal torop kon comme ni ñu woote bu ñu def rek d'ailleurs sax am na dëkk yoo xamante ne nii def nañ commencé di leen jàppale mm-hmm. di leen masaw na bu baax a baax te nekk na lu métti torop te bilan bi ba tey ñu ngi ne ba fi mu toll sax mën naa yokk parce que ñu ngi di seet nit nii ba tey di leen masaw bu baax a baax xam naa dañ koy jeexalee rek ak combat yi nga xamante ni nii amoon na démb dimanche diggante kii gi Bombardier ak Tavan ak euh, Tapha Tine mm-hmm. bi ñuy laajte nag mooy euh, bëru làmb fan la jaar parce que làmb bi <laughs> boo xoolee ñu bëri dañuy naan làmb bi yëguñu ko woon làmb bi yëguñu ko woon boo xoolee tamit stade bi feesul si d'après constat bu ñu def stade bi feesul. lamb bi euh, tafatin sax moo ko mujjee gagné ndaxte kii di Bombardier dafa mujjee woon a am blessure euh, si loxo. waaw effectivement ah, peut-être euh, fi ñu ko njëkk a mooy bës bës lamb peut man dama ko am si ñaar ba ñetti. Mm-hmm. ñetti ànd daal tax ma gis ne bëri na nit d'abord mm-hmm. ñaari mbëri. ak waa comme je dis nekkuñu nekkuñu dem ci mbër yoo xam ne dañuy drainer fu mu bëri bëri bëri yooyu. muy tabaatee keneen muy keneen muy Bamba Dieng nekkuñ ñoo xam ne par exemple tey benn Modou Lo la wala benn Siteu wala benn Ama Baldé mel ni noonu ko côté ful daal nekkuñ ñoo xam ne dañuy drainer ful bu ful bu ful bu ful bu bëri noonu. beneen bi mooy léegi itam système bi nga xam ne ñu ngi koy dawale combat yi muy xaw ma pep pep bi xam ne dañuy jaar ci. nga xam ne dañuy jaar ci. maanaam da ngay jaar ci waaw da ngay fay seetaan ak yu mel mm-hmm. peut être loolu tam bokk na ci loo xam ne léegi. Euh, combat yi amatul ampleur yi nga xam ne euh, d'habitude euh, d'habitude dañ ko doon am yaakaar naa kon. peut-être ñaari jàng yooyu daal laa tax peut moo tax ndax ñu bëri dangay gis bi ngi leen bi ngi leen comme par exemple man bi ma jëlee bi ma envoyé lien verdict bi combat bi victoire ak yooyu après ko ah combat dafa amoon. Mm-hmm. effectivement kon comme li nga ne. am na ba am na ba kii yaa ngi dañu bëri sax xamuñu woon ne combat combat combat am na quoi euh, am na am na. Ah, léegi bu ñu desuwaatee tam si combat bi ak it euh, ni mu demee comme ni nga ko waxee rek euh, am na benn round d'observation ñoom ñaar def nañ corps à corps Bombardier mu signalé si moom am gaañu gaañu. Mm-hmm. bi mu demee bi ko médecin yi seetee ñu xam leen ne kon mënatul continuer. li nga xam ne moom mooy combat yi ci loxo la euh, gaañu peut-être après dinañ xam benn façon gaañoo ak yéen mel euh, la amoon wante nag bi en tout cas bi nga médecin xoolee daal xam ne mënatul continuer li nga xam ne moom mooy euh, combat bi ñu jox ndam ki nga xam ne kon moom mooy Tapha Tine kon nag muy deuxième victoire boo xam ne am na ko ci ki nga xam ne moom mooy Bombardier soxna Seck waa comme ni ko gisee rek waa Mbour démb encore dañoo amaat defet man Mbour laa dëkk. ok <laughs> voilà loolu la combat bi dama gis ñu bëri di tooñ di naan takku jàkk rek la woon moo tax yëgale wuñu ko. <laughs> xaw booy moom dañoo mën a tooñ <laughs> waaw bourse yi la xam naa foofu la ñuy jaaree daal di tëj euh, première partie yor yoru Sene Info di jaajëfal euh, mbokk internet yëpp ñu doon seetaan si Sene Info point net Sene Info international yi lañ leen indiloon tey si seen yor yoru Sene Info informé sur seen i waaw buur xam naa dañuy jàll si suñu deuxième partie yor yoru seen info ñu daal dalal suñu gan gi rek di pàkk musique ma bàyyi la nga dalal ko. Euh, waaw soxna Asel comme ni nga ko waxee rek euh, moom nag Pape Abdoulaye Koundoul euh, lay wuyoo nom d'artiste am nekk pàkk musique. Euh, muy ndaw loo xam ne macha allah euh, ku xarañ la ci li nga xam ne mu ngi koy def te buñ duggee ba ci biir xam naa dinañ ci dinañ ci xam dara xam naa balaa muy sori rek kon dama koy bàyyi mun na yéen tekk ñi nga xam ne eh, ñooy mbokk internet yi. yaa asalaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di commencé ci nuyoo bi ñi nga xamante ne ñu ngi suivre actuellement seen émission yor-yoru seen info voilà di nuyu buur di nuyu aussi Astel. ak euh, réalisateur yi ma fekk fii nii yëpp macha allah di am mbégte bu baax ak euh, plaisir ci invitation bi. Hmm. voilà di nuyu Sénégal di nuyu àdduna parce que seen info moom wax dëgg yàlla ku ko wax xam ne ñëpp a ngi koy suivre à travers le monde gars yi fépp fu ñu nekk ñu ngi euh, seen info donc bu ñu fi ñëwee tey plaisir lay nekk ci ñun ci ci ñu teew fii voilà di la nuyu di nuyu àdduna di nuyu ñëpp. waaw ah. hmm. sama laaj bu njëkk rek ah naturellement dama lay laaj kan mooy kan mooy Pape Musique. voilà <laughs> Pape Musique Pape Musique euh, déjà comme li nga ko waxee Pape sama sama nom d'artiste la muy suma initial maa ngi tudd Papa Abdoulaye Koundoul nekk benn jeune juddoo Grand Yoff yaroo fa màggee fa voilà passionné ci art tamit depuis ma nekk xale ba tey yàgg ko yàgg ko bëgg yàgg ko suñu si voilà nekk ci nii actuellement di ci di ci di ci exercer wu di bàyyi sama waar tamit voilà kooku daal mooy mooy Pape Musique léegi xam naa balaa ñuy ñëw ci peut-être euh, répertoire pack musique ak ay projet am ak yooyu dafa am loo génne lu bees lu neex ñu koy wax euh, doo xool ah <laughs> buñ lan la moo waral doo xool ak inspiration yi fu mu ñëwee euh, ak yi mel daal. doo xool mu nekk suma suma dernière single bi ma lancé démb voilà doo xool bi nag inspiration bi mu jógee ci maa ngi koy nuyu de passage sunu sunu grand Zarko. doomu Grand Yoff mu ngi suñu fierté aussi voilà depuis bi mu defee retour am ba tey jógee extérieur ñëw duggaat ci làmb ji dafa indi benn benn parole quoi parce que da ngay wax mu naan la doo xool xanaa doo gis donc ñu dem bu benn instant gis ne parole bi gaay dañ koy utiliser lu bari te tamit vu que ni morceau bi benn égo trip la bu dee ci côté rap ngay wax parce que ci sam bopp lay wax donc foog ma tagg sam bopp wax gars yi nag xanaa duñu xool <laughs> noonu la demee <laughs> <laughs> moo tax utiliser doo xool waaw xanaa à part loolu rek euh, mën naa ne euh, jàll xanaa gis ak kii rek euh, sa répertoire nga tàmbaleeg léegi mm, man moom comme ni ma koy waxee chaque jour musique laay def en de manière générale laay def parce que booy xool ci suma morceau yu yu yu jiitu avant bii nii. ay acoustique laay def carrément acoustique parce que man damay jouer guitare déjà te damay jouer ay after work nekk ci ay ay ay ay soirée dîner de gala ak yooyu noonu donc man ci euh, acoustique laa gën a focaliser wu nag moom mooy suma suma base quoi mais par contre musique yëpp laay def waa man musique de manière générale laay def waaw. waaw damay dem variété façon musique yëpp laay def. <laughs> non man moom laaj bi mu koy laaj mooy euh, lan moo ko dugal si musique. lan moo ko dugal exactement si musique. waaw laaj boobu moom dinaa dinaa sawar pour li ci tontu. Mm-hmm. parce que comme li gars wax rek euh, loo doon nu mu dëgër. Mm-hmm. musique mën naa ne dama ko bëgg dama ko yàgg bëgg dafa ma nekk xale. Mm-hmm. mais aussi euh, mën naa ne tamit dafa bokk ci man dafa nekk ci suma deret. parce que kundul laa sant te ku xam kundul xam ne ay maama lañ déjà. Mhm. te sama maam bu góor bi nga xamante ne moom moo jur sama papa. il a été commandant à la musique principale bu forces armées sénégalaises pendant des années. Mhm. donc sama papa aussi ñëw nekkoon armée branche euh, musique la nekkoon sama rakku papa yi ñëpp musique la ñuy def ay instrumentiste lañ ñenn ñi ay danseuse lañ ñenn ñi voilà ay danseur lañ. donc boo juddoo fekk tamit ñëpp nekk ci benn mbir mën naa ne nag euh, passion la déjà mais tamit deret tamit ci la bokk. ndono la wax te gaa yi dama déglu naan loolu doon na mu dëgër. Mhm. waaw loolu moom mu dugal ci musique. <laughs> macha allah léegi tey bu ñu doon xool pak musique yaa ngi dugg si musique fekk ko si benn si benn domaine boo xam te ne nekk na fa. Mhm. tey yow ban bëggoon nga si am fan nga bëgg a yóbbu musique bi tey. voilà musique sénégalaise comme li may wax chaque jour rek mi ngi dox. Mhm. donc te ku ci nekk si ñun muy man muy keneen ak keneen ñi ñu fi fekk ak nii ñu war a fekk si aussi. peut-être ku ci nekk am nga ci benn yéene am ci tamit benn mbébét. man nag bokk na ci su may su may yéene ak su may rêve yóbbu musique sénégalaise ba niveau boo xamante ne tey foo taxaw ci àdduna bi boo waxee musique sénégalaise ñu tudd ci Pac Musique man man loolu mooy sama suma mbébét ak suma yéene à travers nag style musical bi nga xamante ne moom laay def muy acoustique bi mhm. waaw parce que ku xam musique acoustique xam ne musique bu la fépp ci àdduna bi dañ koy déglu aussi dañ koy jouer donc suma yéene daal mooy exporter musique sénégalaise au niveau international bien vrai que nag gars yi fi nekk ñu ngi koy def ñu ngi liggéey lu nice parce que chaque jour yaa ngi gis euh, artistes yi ñu ngi di dem ay festival di dem partout dans le monde di représenter Sénégal donc man tamit bëgg naa indi sama touche ak sama participation ci loolu pour jaay destination Sénégal au niveau international ci côté musique solo waaw xanaa rek man peut-être laaj bi ma koy laajaat euh, dama tey euh, répertoire Pac Musique tey boo ñu ko doon waxal lan la. voilà répertoire bi aussi riche na parce que bon def nañ ay ay ay ay morceaux yu bari boo duggee déjà ci suma chaîne YouTube di fa gis ay vidéo am naa ay clip maa ngi ci suma troisième vidéo nii aussi def naa fa ay son yoo xamante ne version audio la yooyu amul vidéo ñu ngi nekk aussi ci ci projet album. enregistré nañ presque album bu bu pare boo xamante ne dañuy xaar rek moment bu ñu incha daal ñu ngi naa ne bés aussi gars mm-hmm. euh, en tant que jeune jeune nga euh, di yëngatu euh, ci comme musique yeneen ndaw ñu ngi yëngatu feneen ak feneen tey en tant que jeune ana ban message peut nga mën a apporter ñi nga xam ne ñoom ñooy sa sa moromu jeunes yi. bon message bi may lancé nag ci suma moroom jeunes yi lenn la rek mooy euh, képp ku ci nekk ci ñun ak ci domaine boo mënti nekk mhm. nga fexe def ci fulla ak fayda bay ci sawaar parce que ku ci nekk ñun am na loo bëgg ku ci nekk aussi am na am nga yéene boo xamante ne mhm. soit ci sa bopp ci sa famille wala ci dëkk bi donc kenn ku ci nekk ci ñun jeunes yi dañoo war a conscient ci domaine bi nga xamante ne ci ci nga nekk muy lu baax mhm. nga gën ci exercer wu gën a fexe di gëstu ci li ngay def gën a fexe xool yow li nga nekk nii ci ban niveau nga ko fekk ak ci ban niveau nga ko bëgg yóbbu mm-hmm. maanaam ñu déterminé quoi am ambition am aussi objectif mm-hmm. parce que dama gis ne euh, jeunes yi ñun ñoo war a mën a yore réew mi ëllëg te lépp lu war a baax suba tamit ci ñun la war a jaar mm-hmm. donc ñi nga xam ne ñooy nekk jeune tey suba ñoom ñooy nekk mag parce que ñi nekk mag tey démb ñoom ñooy nekkoon jeune te amaana bu ñu ko ñaawaloon ñoom wala ñu am nañu doxalee peut-être ñun tey du ñu yegg ci niveau bi nga xam ne dinañ am ambition dina am lu ñu bëgg dina am aussi fu ñu bëgg yóbbu réew mi mais loolu li ñu koy may rek mooy ku ci nekk nga am détermination ak euh, pas-pas ci li ngay def def ko ci fulla ak ci fayda man loolu laa am comme message boo xam ne dama koy lancer jeunes yi quoi ku ci nekk ci li nga nekk daal gëm ko jàpp ko def ci fulla ak fayda surtout. macha allah mhm. mais Pac est man nag ñëpp laay déglu mais mhm. euh, depuis ma nekk xale nag moom ba tey. Mhm. depuis ma nekk booy bu ndaw ba tey dama yàgg bëgg waa vidéo bu bees. vidéo bees waaw dama leen yàgg bëgg aussi dama leen yàgg suivre. waaw depuis ma nekk xale bu ndaw di leen di leen suivre di leen topp. di leen dama leen yàgg euh, bëggee maa leen di nuyu de passage euh, sama sama sama grand béy moom dañuy dëggante du bëree bari Ibrahima voilà ak mataar aussi. damay déggante ñoom bu baax a baax ñoom tamit ay nit yu baax lañ mm-hmm. waaw maa ngi leen di bëggee bu baax. kon peut-être ñàkkul xanaa ñàkkul ñuy xaar ñu xaar nga def benn bi rek ñoom. waaw ci lu yàggul dara incha allah ci ci ci projet album bi war nañ ci liggéey ak ñoom bu baax a baax bu soobee yàlla. aussi dafay am envie tam laaj la laaj la dara quoi gis nañ ne man jot naa suivre say say say son gis naa ne def lu neex quoi mm-hmm. mais tey lan moo tax peut euh, dégguñ la mën a waxee si waaw bi nga xam ko alal ah. mais comme li may wax sa euh, bés bu jot rek. mooy que nii musique wala même bu dul musique sax lépp lu nit di def ci àdduna daf ko war a def topp ko topp chemin bi bañ ko yàqamti def ko yoon par yoon parce que àdduna dara xëyul rek sotti mhm. te man musique euh, certes que am naa yeneen liggéey. mais ambition la boo xamante ne dama ko bëgg développé. développement bi nag dama bëgg comme li ma wax sànq rek mu yóbbu ma ci niveau boo xamante ne fu ma taxaw dinañ xam ne kii li mu def la ko tarbiyu da ko da ko da ko mën au fait da ko jàng quoi. Mm. parce que bëri na tey ñoo xamante ne da leen fiy gis comme li nga wax ci buzz. ñu génnee benn affaire wala ñu def dara mun naa yees ñëpp ñu wax ko après voilà du am suivi du am toppatoo te bëri na aussi ñoo xam ne doo sax gis xamoo leen te doo leen dégg et pourtant mm-hmm. ñu ngi évoluer di def lu rafet ci ci ci ci seen domaine bi ñu nekk. donc man yàkkamtiwu ma quoi affaire damay bàyyi mu ñëw naturellement. macha euh, <laughs> waaw sànq ñu ngi doon wax ci wàllum euh, jeunesse euh, ak d'une manière générale mais aussi grand bi nga xam ne nii fa nga fa nga fa nga soqeekoo ay jeunes nga fa tey ana it par rapport ak message de sensibilisation beeg yooyu ndax yaa ngi fay mën a. waaw waaw waaw parce que comme li may wax tamit chaque jour rek yàlla dafa def nekk ay doomu Grand Yoff doomu Grand Yoff pour man du loo xamante ne da nga koy wax nii rek parce que tey bëri na ñoo xamante ne dañuy nekk Grand Yoff naan doomu Grand Yoff doomu Grand Yoff alors que du ñu doomu Grand Yoff parce que doomu Grand Yoff mooy ki nga xamante ne yow bëgg nga Grand Yoff mu avancé dem ci kanam. Mm-hmm. bëgg nga yow foo taxaw ne doomu Grand Yoff laa ñu respecté la respecté Grand Yoff à travers yow sa image. Mm-hmm. donc am na nit yu baax yu fa nekk nit yoo xamante ne dañ leen di gis respecté leen. Mm-hmm. Euh, ma jox la benn anecdote man. mës naa dem liggéeyi guddee wàcc mais euh, ki ma doon liggéeyal jour boobu maa ngi maa ngi maa ngi koy tàggu ne ko damay dem mu ne ma maa fi nga ñibbi soriwul ne ko non Grand Yoff laay ñibbi mu ne ma yow Grand Yoff nga dëkk ma ne benn question la ma posé mooy Grand Yoff dégg dafa bëri lii dafa bëri lii man ko man mi def ak yow Grand laa dëkk mu ne ma ne ko mais ci man lenn lu niroog loolu nga fi que depuis ci suba maa ngi fi di liggéey te ful la nga gis ci man ak fayda ma ne ko nag foo dem ci àdduna am nañu baax comme aussi am nañu bon mm-hmm. loolu c'est partout dans le monde mm-hmm. mais dama bëgg jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk Grand Yoff ñu conscient mm-hmm. te xam ne ñoom rek rek rek amul keneen keneen du jóge feneen ñëw pour defar Grand Yoff loolu mënul nekk ñoom rek ñoo ko mën a defar ni ñu ko mën a defaree nag mooy fexe jox ko image bu nice kese fexe jox Grand Yoff image bu nice à travers yow si sa image bopp foo taxaw ne doomu Grand Yoff laa respecté la jox la cër xam ne Grand am na nit yu baax yu ko dëkk yu fa nekk yu am ambition aussi waaw man message boobu laay lancé jeunesse Grand Yoff bi yëpp mais tamit aussi di remercier bu baax grand Zarko parce que mi ngi ciy def liggéey bu am solo mi ngi ciy def liggéey bu am importance moom ak ñeneen ñu mel ni moom dig dund gis gars yi nga xam ne Grand Yoff lañ jaar yëpp maa ngi gis ñuy lancé ay message di sensibiliser jeunesse bi te gis nañ ci aussi changement bu am solo parce que booy léegi koo ci gis mi ngi jóg di jaayante di liggéey di fexe di góorgóorlu bëri na nag ñu fay am ñu ne Grand Yoff alors que ñi koy def sax dëkkuñu fa. ñuy jóge feneen ñëw Grand Yoff def la def après génn. mais comme que Grand Yoff lay xewee rek Grand Yoff la ñuy mën a tudd mais ku juddoo Grand Yoff dëgg yaroo ngay am jom da ngay nangoo dëgg la de la yow mii Grand nga dëkk ak ñeneen ñoo fi lim ñun tam yàlla def na Grand lañ dëkk jàngee fa defee fa lépp ah sa waa ji nga àndal tam Grand Yoff la dëkk mu ngi xëy di kon comme ni nga ko waxee rek maanaam peut-être yenn yi ñenn ñi def di saltel mooy tax ba peut-être ñuy jël euh, benn collé benn image étiquette générale li nga xam ne moom mooy moom mooy Gox Grand mais effectivement am na ñoo xam ne ay jeunesse bu conscience jeunesse bu am jom euh, ñoo ñoo ñoo ñoo nekk foofule foofule foofule ca Grand Yoff waaw xanaa rek bu fekkee ne ah soxna Asel amul lu la laajaat man dama lay laaj looy tëjee rek ah moom nekk. bon di di. non li ma koy laajaat man si tëj la rek. <laughs> balaa muy tëj balaa muy tëj wala soit bu tëjee bu pare ba pare daf ñuy wax la la ñu indaaleel. exactement eh, dëgg la loolu mënul ñàkk waaw man dama lay dara. voilà dinañu yaay xool rek nga tëj ba pare wala soit nga jox ni ko ba pare. waaw ba tey mën nañu tëj après mm-hmm. tëjee benn affaire bu ndaw. d'accord comme li ma waxoon ci commencement bi di bëgg bu baax a baax di kontaan aussi ci ñëw ci seen plateau euh, bi nga xamante ne macha allah gars dañ koy suivre partout dans le monde mu nekk euh, chaîne boo xamante ne seen liggéey am na am na solo trop ñu ngi leen di remercier bu baax di kontaan di leen ñaanal yàlla aussi. Mm-hmm. ngeen dem ba télé bi waaw tollu niveau boo xamante ne ñëpp dinañ ko reconnaître au niveau international incha allah te noonu lay demee parce que gis nañ fi ay jeunes yoo xamante ne macha allah yu am pas-pas yu nangu aussi liggéey bu baax di remercier aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi doon seetaan à travers euh, émission euh, Yoor Yooru Sene Info voilà di remercier bu baax aussi ki ma àndal Ndiaye mi nga xamante ne sama ami d'enfance la ñoo fa wandoo depuis temps ba léegi mais depuis ma lancé suma carrière ba tey fépp fu may dem day bàyyi itam yëpp déposé ma toog xaar ma su paree ñu àndaat ñibbi voilà di beral euh, remerciement nag euh, suma grand bi toog nga xamante ne mën naa ne yu bari moom da ko fekkee parce que am na fu ñu jaar ñoo bokkoon gox voilà ñu mën naa ne ñu yaroo ci kanamam mu def ci ñun aussi lu bari parce que bi ñu ko xamee ba tey fulla lañ ko xamee jom fayda ak nangoo liggéey aussi di ko ñaanal yàlla bu baax suñu borom sàmm ko sàmm njaboot bi mention spéciale aussi suma manager la Bari Chéri Jeewo Maxtaar Dramé nga xamante ne tey tollu ma fenn nag wax dëgg yàlla mais su ma demee ba mën a réaliser ay vidéo ay son comprendre nga moom la moom ma jàpp comme li may wax chaque jour man namuma label namuma producteur parce que lépp lu gars yi ci kaw di am man am naa ko mhm. li ñuy am mooy soxla musique soxla soo dem dem studio jot ko li ñuy soxla mooy réaliser vidéo te yàlla mi mooy dimbali saa yu ma ko soxlaa mhm. fu la bari Cherie Diaw mi taxaw donc ma koy sant bu baax di ko gërëm gërëm aussi waa Grand Yoff fi nga xam ne fa laa jógee mhm. ak euh, monsieur et madame Diallo aussi suma goro yooyu nga xamante ne macha allah yàquñu ko ak suma jabar nee ne baayam ak képp koo xam ne daal yaa ngi may suivre maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan aussi ci invitation waaw maman balaa ngay tëj culture da ngay bàyyi mu ñëwal ñu naan. waaw ñu. ñu życia. sa xol du neex sa xel mi sori loolu nga duggi xaaral li reste yaa ngi naan su mënoon a ñëwaat man duma ko defaat yenn saa yi nga toog sa xol du neex sa xel mi sori loolu nga duggi xaaral li reste yaa ngi naan su mënoon a ñëwaat man mii duma ko defaat waaye na sant jël lépp wekk ci lawu xam ni lépp loo fi dund jiitu na sa juddu ku nangu ndogal li du ma sa sonn looy defati wala looy waxaati na xool bu baax ngir ëllëg réccu bañ la cee fekki non non non dina fekk jëf yowee ju dina fekk jëf ya weyee ore ju dina fekk jëf ya weyee ali ci réccu mooy ali ci réccu mooy dundu démb tey mu dellu ci sa xel mu metti la loole àlli ci réccu mooy àlli ci réccu mooy li nga dundu démb tey mu dellu ci sa xel mu metti la loole tàmbalee ci maam Adama ba wàcc ci ñun mbindeef la yàlla buur bi moo ñaalee juróom bu doon nit ku juum doon ku bon bu doon nit ku juum doon ku yees gëm naa ni dina am mbindeef yu dul mësa baax bés bu ne ñu tooñ laawu suñ borom moom yi leen ci daara dunya ngir ngeen di ma tooñ te di ma jégal man gëm naa ni réccu dina fekk jëf ya wees waral lu may defati naa ko seet ko beleel jeeri dunya ko mere mere non non dina fekk jëf ya musique lañu déclaré ne moom mooy suñu oh. moo tax au fait fépp fu ñu dem dañuy yóbbu mm-hmm. aussi di message message yi nga xamante ne moom la ñuy véhiculer. macha allah loolu aussi bu baax a baax ci. ci ci waaw yaa gën <laughs> euh, soxna Asel comme ni nga ko waxee rek euh, li mu fi def moom kon ni ma ko doon annoncé ci njëlbeen bi rek naan naa bu laalee affaire bi rek. <laughs> dinañ xam dinañ xam fi mu mënee quoi yaakaar naa neex na lool ñu koy jaajëfal bu baax ci disponibilité am ak it euh, wuy bi nga xam ne ñëw na euh, wuy si ñu ko euh, sanq mu ngi doon wax ci man mais nag lu mu wax ci man rek mën naa ko wax lu raw ci moom quoi sama rakk la boo xam ne tam ku ma ku ma déggal la te invité mu ko parce que rakk la mais dama ko invité parce dafa am talent dama ko invité parce dama xam ne euh, ku ku mën li def la te euh, ku ku am jom la xale bu am jom la di ko jaajëfalaat kon bu baax di jaajëfalit mbokk internet yi nga xam ne kon ñu ñuy euh, bàyyi xel ci yoonu seen info di leen jox dikk daje astel ba ëllëg ci waxtu bi comme ni nga ko waxee rek talent bi moom gis nañ ne mu ngi fi ginnaaw lu mu wane moom xam nañ a baax di la jaajëfal tamit euh, si teew bi di jaajëfal euh, sa copain bi nga àndal euh, ba tey rek yéen a ngi woon seen yor-yoru seen Info internet tour Sene Info point net Sene Info international li lañ leen indiloon tey si seen yor-yoru seen Info di leen jëfal di leen jox dig daje suba incha allah restez toujours informé sur Sene Info ci bile jamono Restez toujours informés sur Seneinfo ki bàyyi woote la ci bile jamono fii la mburu bi tàngee fii lay xayam xayame ki bàyyi woote la ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër